من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول الله أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه المهتدين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وصدق الله سبحانه وتعالى حيث يقول في محكم تنزيله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية وقال أيضا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال أيضا وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثم إنه هدفنا اليوم هو الحديث في حياة الشيخ الكبير العالم الشهير الحاذق الماهر الأديب الشاعر منبع العرفان والأسرار ذي الأمواج الزاخر بحر البحور فضيلة الشيخ حاج محمد المنصور سي نجل الشيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه وارضاه وعنا به mbokki julit yi alhamdulillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu kilifa yi rot si ci barab bi te daanaka su ma nee kilifa yi maa ngi ci namm ñépp ndax ñii fi toog ñépp xeetu sayiduna muhammad lañu mu soob yàlla mu may leen ñu nekk ngeen ji xeet kon ñoom ñépp ay kilifa lañu waaye kat ba mbir ma di yegg ca sun boroom nit lum nekk nekk kilifa am kilifa ba kero mbir ma yegg ci sun boroom sun boroom nag bu fa yeggee moom amul kilifa yàlla moom kenn yilifu ko te moom mooy yilif ñépp ñu jiital ci nuyoo bi góor gu mag gii di bàyyi alxaaji mbay binta pay yal na yàlla yokk ko wattu yokk ko fi yàggal ak wér teg ci nag nuyoo Seydi Aboubacar si te bu ma ko waxee mooy nuyoo njabootu maam Cheikh Alxaaji Malik si gépp radiallahu anhu ñu di ko ñaan mu fabal ñu nuyoo bi yokkal ñu ba nuyoo bi gën a mat joxal ñu ko tey alxalifatu l am cheikh seydi mouhamadul mansour si ibnu seydi aboubacar si daje bi dajeem la moom moo ko moom moo ki rakkam ña ca di góor ak ña ca di jigéen ak képp ko aju ci kër cheikh alhaj malik nuyoo bi buñ ko tegee ci sëriñ mansour nuyoo bi agsi na ci yow daaira bi nag seen yéene ak seen jubluwaay doonu lenn lu dul dañu di ay ndaw fekk seen way jur yi ci lii ñu doon ci ay jàmbaar yi fàkk tëdd bëgg yonent bi bëgg Seydi Cheikh Ahmed Tijani bëgg Cheikh Alxaaji Malik ak lépp lum jaboote nag sàkku ñu ca xeej ji sàkku ñu ca seen yàlla dogal xale yi ci seen bopp ñoo choisir thème bii gémmiñu benn mag dugg ci ñoom ñoo ni ñoom daal affaire par parloo intéressé wu leen fonk nañu diine ji yépp fonk nañu tariqa bi yépp fonk nañu njabootu Cheikh Al Hadj Malick yépp mais bëggoon nañu am tuuti extrait ci Baye Al Hadj Mansour si parce que umpale nañ ci moom lu bari te loolu defe naa buñ ko waxee mook ñu bare nag ndax moom yàlla dafa dogal dafa nëbbu biñ ko tànnee it pour wax ko sëriñ bi rek difficulté la ci ñoom parce que ku ko mës a tànn rek sëriñ bi ne la déedéet déedéet damay bañ mu niroog par par la wala dara ba bi ñuy joxe carte yi am na ku ma ni waaw sëriñ bi dama jaaxal na ma ñun ñoo jëkk a choisir thème bi mu gàntal ko ba pare nangul ko ñii ah ma ñëw it nettali ko ko mu ni ma day door a jot loo ci man ku la gën a xam wax na kon defe naa ne lii xale yi bëgg a barkeeloo lu xër ci nañu lañ ci mag ñi lu xër ci nañu lañ ci réew mi lu xër ci nañu lañ ci Afrique yépp lu xër ci nañu lañ ci képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah parce que seen maam jii ñuy waxtaani ñépp la fi nekkaloon ñépp la bokkaloon ñépp la jàppal jàppaloon ñépp la doon jëriñ ci li ko yàlla may ñépp la dimbali damay xool léegi ci range bi déy sëriñ bi ni ko mag ñi ñoo baax ñeenti Mansour a ngi ma jàkkaar la mu ne ma kon kay juróom la na beneen Mansour a nga nale loolu day wane ni mag ñi jëfante woon nañu ak moom Mansour Kane ngi ni Mansour Anne Mansour Niang Mansour Pouy Mansour Mbaye Mansour Sow Mansour Guèye kon donc liñ bëgg a firndeel rek mooy lii du lu bees waaw du lu bees daal alhamdulillah jàpp nañ ne jullit yëpp daañ ci kontaan ndax jaamu yàlla rek lañ ci jublu bi ci topp moo di nit dafa mënul dem te amul référence kenn ku ne am na fooy xool pour jéggi sa tànk ñu gis ne mag ñi ñu am rëy nañu lool borom cër lañu borom may lañu waaye ñoom la leen seen xel jox ak seen xalaat ak seen bëgg-bëgg te ñu bokk ko ñépp moo di waxtaane tuuti aslëf ci dundu bàyyi Cheikh Hadji Mouhamadul Mansour mu Cheikh Al Hadj Malick waxtaan wi nag dina yomb te jafe li koy jafeel moo di man mii bëgg a wax tuuti ci moom fa mu nekk moom ak fi ma nekk man soriyaatoo gi dafa ëpp leer ga mu leer moom ak lëndëm gi ma lëndëm man dafay jafe pour man ma waxtaane ku mel noonu waaye pour ñu dégg yàlla subhanahu wa taala ci alquranul karim doon na jàngale leeru boppam di ko niroole ak lampe listre wax ji ma doon nettali léegi kii moo ma ko wax Ibrahima Jonn moo ma ni waaw ñun de thème boobu ñoo ko jëkkoon choisir sëriñ nag ñii la ko nangul ma ñëw nettali ko sëriñ bi mu ne ma day door a jot ndeem wax naa ko ci gannaawam wax ko ci kanamam xam ngeen ne lu wér la ma ne nag waxtaane ku mel nii dafay jafe ci man ndax kawe gëm kawe moom ak suufe gi ma suufe man leer gëmu leer moom ak lëndëm gi ma lëndëm man waaye pour ñu xaw a mën a dégg sunu boroom ci alquranul karim doon na jàngale leeru boppam di ca joxe misaal di ko niroole ak lampe listre te ma jàpp ne leeru yàlla soreyoona ak làmp listre na leeru yàlla rawe làmp listre noonu la bay alxaaji Mansour rawe jaam bii di wax waaye yàlla dafa bëggoon nu dégg mu def comparaison ci leeru boppam ak làmp listre allahu nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi ka mishkatin waaye li ci ëpp solo te ëpp ci solo moo di man ki may waxe ku ko sopp la te noonu laa gëmee ni ñu koy déglu ñu ko sopp lañu waxtaanu soppeek soppe nag yomb na soppe nag ñeenti xaraf la miim xaa baa hë mahabatu mim bu jëkk bi mushtaqun min almamat wala xaau mushtaqun min alxayat walbaau mushtaqun min albala walhaau mushtaqun min alhana dañu ne miim bi nga xam ne moo jëkk ci mahabatu bi firi cofeel ñi ngi ko xare ci mamaatu ji firi dee ñu ne xaa bi ñi ngi ko xare ci xayaatu ji firi dund ñu ne baa bi ñi ngi ko xare ci balaa ji firi nattu ñu ne haa bi ñi ngi ko xare ci xanaa ji firi mbégte ñu ne loolu luñ ci mën a jële ñu ni kon koo sopp ku ne deem mooy sa dee dundam mooy sa dund nattoom mooy sa nattu mbégteem mooy sa mbégte kon ñi fi teew tey ci saal bi te bokk sopp bàyyi Cheikh Hadji Mouhamadul Mansour Sy li ma jàpp ne mooy pexe tey ci waxtaan yi moo di luñ ci dégloo suñ demee jël ko def ko muy comportement ñu dundee ko te bañ a toog rek di yéem naan eskay eskay mais bare na lu may wax naan wolof yéem moo ko gënal jéem waaw wolof dañuy yéem mais duñu jéem góor googu nag radiallahu anhu jant ñëw àddinaam mi ngi fenk ci mille neuf cent mille neuf cent la jant ñëw àddinaam fenk ca Tiwaawan góor gu baax gu tudd Cheikh Alxaaj Malik mooy woy juróom soxna su sell su tudd maam sofiyatu ñang mooy way juram moom nag yàlla daf ko may moo dëkk ak baayam ci dund dëkk ak baayam ci faatu loolu nag du lu nit di bàkkoo parce que yàlla rek a ko mën a maye kenn mën ko fexe إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ngëneel ci loxo yàlla la nekk moo koy jox ku ko soob laaya bu yomb jàng la nag xëy na it yomb na firi mais jafe na dund bare na ku gëm ne ngëneel ci loxo yàlla la nekk moo koy jox ku ko soob waaye bu ko joxee ku ko soob rek nga topp ci yow di mer parce que da ngay fàtte ni yàlla mooy jëf lii nga jàpp ni ki yor lii dara la ci lim lii mu yor te fekk du ca dara yàlla rek mooy def lu ko neex mu mel ne bi mu ganee àddina ci mille neuf cent mi ngi génn àddina làq suñuy bët ci mille neuf cent cinquante sept neuf cent ba cinquante sept boo ko seetee cinquante sept ans rek la dund amul soixante ans su fekkee déglu nañu ak liñ fiy karfatee ci dundam gu gàtt googu ak lim réalisé ak lim liggéeyal baayam Cheikh Al Hadj Malick ci ndigalam liggéeyal ko Serigne Babacar Sy radiallahu anhu magam liggéeyal ko diine ji liggéeyal ko tariqa bi liggéeyal ko Afrique moo lay fàttali aaya bii ma jàng sànq sunu borom wax ci alquran ni bare na ci biir asamaan ak suuf kéemtaan bu ca nekk nit ñi di ko romb waaye settantaluñu ko sidi xaaji Mansour Cheikh alxaaji Malik moo ko wax benn bés ni ko Mouhamadul Mansour mu ni ko labbayka mu ni ko doom yi ma jur yépp may naa leen ndigal mun nañoo yegg fu leen neex ndax du ñu jaar insha allahu lu dul ci lu neex yàlla waaye yow amoo droit fenn maak yow nii rek ah kooku cër la waxtaan wi nga xam ni moom laa ci préparé dama ko bëgg a tënk ci point yi may bëgg a tudd moo di góor gi Hadj Mansour nit la woon ko noppi ndax bu nu fi jógee jàngaat noppi ndax làmmiñ kat jaan la bare na ku ko tàllal mu matt la te moom dangaram kenn mun koo lugg Baay Hadj Mansour radiallahu anhu ku mënoon a muñ la kon buñ tuddee tuuti ci noppeem gi daañu tudd ci muñam gi ku mënoon a baale la kon baalaate gi mu doon dund ba mësul yëpp sax ni nit a ngi koy tooñ comme ni ko mbokkam yëpp doon dundee daañ ci wax jàmbaar la woon nag ku mës a àndal rek yëg nga ni ku jàmbaar a ngi ku diiñ a ngi nii ku tabe la woon daf la daan may ba pare digal la fooy jaar ba am ëllëg parce que chinois yi nee ñu maye jën wóorul jàngale napp ko gën ku lewatoon la te bari kersa bëtam daawul dajeeg bëtu kenn buy ree day jël loxoom taf ci gémmiñam ku sant boroomam la nag ci lim ko defal ba boo xamul xeetu sant ba muy sant léeg-léeg nga ne day wane boppam mais sant yàlla bu niroogul ak damu booba wéragul cheikh na ahmed tidiane chérif radiallahu anhu toog na ba tàyyi nan yàlla defal ni ma lii yàlla defal ni ma lii yàlla defal ni ma lii ba bés seyduna ali xarazim laaj ko ni ko waaw yow xanaa li la yàlla defal kon ëpp na li saxaaba yi am cheikh mer ni ko xam nga li ma yàlla defal ak la saxaaba ya am seen soreyaatoo soo ko bëggee xam dégg ko ci kàddu gi may wax saaba yi ñu ngi mel ni ay picc di naaw ca asamaan sax man ma mel ni gunóor di raam ci suuf si masalu amalina maa amali ashaabi rasulillahi ka masali namlati maa surati alqattaat te kooku texte la mi ngi ci jawahirul maani kon nitu yàlla bu naan yàlla defal na ma nangam yàlla defal na ma nangam jublu ca bàkku daf cee jublu ne man day lii ma am bu doon sama pexe képp man cundum du ma ko am mukk te léeg-léeg ñu wax it nag nit ñi juum ca nañ koy interpréter loolu nag firiwul ne man maa ko mën a interpréter gis nga ndogu lii ma doon ndogoo démb ci timis benn ndogu rek la ba duna sosoo ba léegi man képp a ko mas a ndogu keneen dootu ko ndogu ba axirul abad fa la yam keneen nit ndogu bam ndogu benn ndogu rek la nit yàlla yi noonu la ñuy firee seen wax yàlla defal na ma nangam yàlla defal na ma nangam yàlla defal na ma ñun nag ñoo leen di jël comme ay fasi course bëgg leen a dawal ci terrain bi te duñ ko def mukk nag ndax masuñu ko woon def te liggéeyu jaamur buñ lay nettali nga jànge ca noo liggéeyee rek moo am solo pour yow buñ ci jógee daañu sànni ay kàddu ci xam-xamam bu rëy bi mu roote ci bàyyam Cheikh Al Hadj Malick parce que nag bi mu jàngee Alquran ba mokkal ko ci bàyyam Cheikh Al Hadj Malick daf ko bind leetar ni ko bàyyi dama bëgg a dem gànnaar jàngi Cheikh Al Hadj Malick woo maam Saïdu Nooru Taal radiallahu anhu mu ñëw jàngal ko sama bopp jàngal ko li ma xam lépp bu ëllëgee ku ko soxla ñëw ci moom mu xamal la ko woo ko mu ñëw moom bàyyi Cheikh Hadji Mansour Seydil Hadji Malick ni ko limal nitu yàlla yi koo ci xam muy tudd xam naa diw xam naa diw xam naa diw xam naa diw ba daaneel maam Cheikh Al Hadj Malick ni ko insha allahu ñooñu nga tudd ñëpp ak seeni may dagaan naa sama boroom lañ am mu defal ma ko ci sa jëmm ji yow Mouhamadul Mansour ah te Maodo du waxantu kon bala ñuy départ conférence bi ñu ngi ciy ndokkeel Serigne Mansour xalif général di ci ndokkeel njabootu Cheikh Al Hadj Malick yépp su ma ko tuddee moo yóbbu ñëpp xew mi xewam rek la sama digganteeg sama borom jàpp naa ne sëriñ bi fi mu toog mi ngi genew waaye na ko wóor ne wallahi wal kitaabi lii ñuy wax jubluwuñ ko ci moom mii wallahi alladi la ilaha illa huwa yàlla lañ ci jublu te yàllaa ñu gën a jege wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kenn ku ne buum gi takk sa xol yàlla la ko gën a jege daañu jéem a waxtaan itam ci ñaw gi bàyyi Cheikh Xaaji Mouhamadul Mansour ñaw loo ko indil mu toppatoo ko ba xam fa mu tege ma joxe exemple rek ci ñaw gi bala may dugg sax ci sujet bi soo ma see ñëw ni ko nangam xew na ñett li ba daaneel dana naan waaw baax na bu ca suba saa ca waxtu wa même heure mu woolu la nga ñëw mu ne loo ma doon wax démb nga nettaliwaat ba daaneel mu ne la waaw baax na bu ca ñetteelu fan baa même heure mu woolu la nga ñëw mu ne la loo ma doon wax démb nga nettaliwaat ko boo ci yokkul point wàññi woo ci virgule mu xam ne lu nit répété ñetti yoon yokkoo ci wàññi woo ci dëgg la mu jóg tranché xam nga ci buñ ci jógee di ko roy erreur mën na bañ a amati sax ci sëy yi bañ a amati ci société yi bañ a amati ci dëkk bi bu fekkee roy nañ ci loolu kon première dar sa ngook daañu jéem a waxtaan it ci nim yaroo woon parce que ku tekkeeral la ba moom dab nañ ci lum bind muy wax ni daan nañ ko yedd sax ci nim ne tekk am na fu muy binde naan wa kam laamani baadu l ahibati an sukuuti wa sukuuni wama sukuutu sukuutu xawfin wa jazain illa anni raaytu ida lam yabqa fi ddiini min bayni l ixwa gayri almucaaradati waltuhmati walmuqaadafati walmushaaxanati walmuxaasamati fa sumtu firaaran min alcheytan moom Baye Xaaji Mansour nee na bari na lu mu ma yedd sax lenn ci ay soppe ci noppi gi ma noppi ak dal gi ma dal mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ne noppi gi ma noppi ak dal gi ragal lalu ko jàq lalu ko bëgg lu ma amul lalu ko li am te wér damaa gis ne su fekkee noo ngi dund ci jamono boo xam ni dara desul ci diggante ay mbokk lu dul rek gaaralante ak tuumaalante ak xasante ak bañante ay mbokk noonu lañ nar a dunde ci kaw suuf nee na ma tëj sama gémmiñ man man suur ndax ma mucc ci seytaane kon donc dal gim dal xam nañ lu taxoon yaru gim yaru ragal bu mu ragal boroomam tarbiya bu ko bàyyam Cheikh Al Hadj Malick tarbiya tax itiraafuhu ku amoon reconnaissance la lu ko waay defal rek mu gërëm la ca ca biir da ngeen gis daairatul kiraam ziyaar si ko magam ju tedd ji góor ga ca bonekaare ba Serigne Babacar digal ko li ko waxtaanal ak ñoom mu def ca xasida bu rëy waaw daañu indi xasida booba ci bu ñuy lim diwaanam bu rëy bi le doon gi mu doonoon mbañum rus lépp loo xam ne su ko as gor defee ku ko dégg wala mu fekk ko ci yedd ko giirug dundam ci biir ak ci biti bay saxaaj moom bind na ci benn téeréem ni idal maru lam yurzaq alayhi muruatan ala diini fal amalu min naxwihi xubru nee na doomu aadama bu fekkee ni doonul mbañum rus ci dundam lu julli julli lu woor woor lu azaka azaka lu aj aj màkk waaye rusul dara la muy jëf ci lislaam yépp nekk na poussière daf ko bind point yooyu ma lim ci la ñuy jéem a tënk waxtaan wi man gi mu mën a toppatoo lépp lu xew maa ngi ciy nettali benn am na góor gu ñuy wax alxaaji Malick Dia ilimaan la fii ci Grand Yoff bu amul ngànt jàpp naa ne mi ngi ci mbooloo mi mënul fekke fu ñuy waxtaane bàyyi Cheikh Xaaji Mouhamadul Mansour bés dañu toog ci kër sëriñ man nag comme sama yaram neexul damay jekki-jekki rek ni sàññet ci talalal yi may wax rek bàyyi laa ji Mansour nangam bàyyi laa ji Mansour nangam mu jékki-jékki rek sànni kuddi goom doon añee jóg dem jàppi ñëw di naafila di jooy ba ma rëccu lu ma doon tuddee Cheikh Al Hadj Mansour mu wàcc ci suuf ma dab ko ni ko ak góor gi lan moo tax nga mel nii ci Baye Al Hadj Mansour mu ni ma man soxna umu mu mag lañ ma joxoon ma nekkoon ci waawan waaye sama xel dafa naqari woon su ma daan jàng du ma mokkal dara dara dara dama daan jàng bind bi ba mokkal ko jël sama kurus romb néegu bay xaaji Mansour di tari bind bi jëm gaar ba su ma yeggee gaar ba wàññiku bu ma bu bind bi bu ma ko sikkaree téeméeri yoon door ko mokkal nee na ndeke góor gi du nelaw guddi ndeke loolu may def mi ngi may observé nee na ndeke jëndal na ma basin riche bu weex tal nee na la ma ci jaaxal kenn nattul sama jëmm mu jël kayitu ñaari téeméer ca booba jamono boole ca nee na may tari sama bind ba romb néegam ci mulxatu li arab ni wal xarfu ma laysat lahu allaama faqis ala al xarfi takun allaama misaaluhu xatta wala wa summa nee na mu ne kàccit bunt ba ni ma wahal wa bal wala walam wala ma nee na ni ma ñaw ba jabb ak ñaari téeméer yi nee na lii moo tax mënuma toléré Baye Alxaaji Mansour bu ma ko déggee rek teqali koog sama sago ah comme yaroon nag moo wax loolu kon wax yi kenn sosu ko li ñuy nettali ci moom lenn lu ci nekk def naa ci vérification ci lim bind mën caa duut baaraam ni liñ nettali woon mi ngi nii bind na ko ay borom xam-xam yu nekk fii ci réew mi ak yu génn bitim réew bind nañu ay téere wax ci moom wax ju rëy buñ ca yeggee ca développement ba kama ci jëkk a cité moo di cheikh alxaaji abdul aziz dabbaax bind na lu rëy jëme ko ci magam alxaaji mansour